الشاتي وما بك ضاء أي هذا الشاكي وما بك داء ليس النبي كيف تغدو وإذا غدوت عليلا معشر الجنات في الأرض نفس تتوقع بعد الرحيل رؤيلا والذي نسى بخير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ci àdduna bi yépp rawatina mbokki jullit yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal yépp rawatina mbokki jullit yi nga xam ne ñu ngi bokk ñoom bis bi di bisu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu koy waajal ci weer wi teru di weeru gàmmu ñu ngi leen ci nuyu di leen ci ziyaara rawatina xadara kër Maam Mbàkke Tànjang ba ci ëtt bi nga xam ne fi lañu tooge tey di ëttub alxaaji Mouhamadou Tànjang ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen bàllu ak burtu bi euh, li ko indi mooy màggaayu weer wi weer wi xam nga juddug sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci fukki fan yi la guddi fukki fan ak ñaar ci la amee woon euh, mag ñi nga xam ne ñoom lañ fi wuutu dale ko ca suñu maam alaaji Mbàkke tànjang ñoom ñoo ko fi sosoon moom ak ay muxaddamam ak ay taalubeem ñoo ko daan màggal fii ci njaareem biñ ko sosee nag ñoom dañ daan def guddi gi mooy guddi mawlut gi ci lañ ci lañ daan daje ñoom daawuñu jàng burdu waaye alxuraan lañ daan jàng mag ñi nettali nañ ne ñoom suñu masaana daje booba làmp yi ñuy taal ak làmpi pétrole sax amagut booba matt lañ daan taal rek fanaane tari alxuraan fanaane tari alxuraan di wàcc ay kaamil di wàcc ay kaamil bu reer jotee ñu def seeni reer kontine di wàcc seeni kaamil ba fajar ñu xatmu salaatu julli ñaanante ba déwén nag jàmm fii nag ñu xalaat ci xalaatin boo xam ne nii it bu rafet la ndax niñ koy doxale mooy benn bunt bu ne dina am ñuñ ko jagleel ñenn ci ñi nga xam ne ñoo doon muxaddam yi nga xam ne ñoo doon ànd ak alaaji Mbàkke Tànjang ba ci alxaaji Mouhamadou Tandiang moom itam ak ay muxaddamam yi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom gis nga guddi guddi bii yi nga xam ne jàng nañ ko rek ñu ngi ci dégg ci njabootam ku mel ni alxaaji Màccu Jaw alxaaji Mbàkke Jaw muxaddamam bu mag sëriñ àll siise ak njabootu maam Cerno Kanji ñoom ñëpp ñëwoon nañ bokk ak ñun guddi gi ñu def fi burdu bu neex fas yéene ko tëj nag tey jii incha allahu tëj tëli it ñu jagleel ko alxaaji alxaaji Mbàkke Tànjang ak ak njabootam ak mbooleem muxaddamam yi nga xam ne ña nga ca barsàq organisation bi daal noonu lañ ko defee mu rafet lool itam di ñaan yàlla liñ ci jàng lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko muy dawal bu yiw ñeel maam yaag jur yooya nga xam ne ñoo nekk tey ca barsa ñoo ñëpp nag ñu ci bari ni ki biig guddik biig gi muy guddi ñoom moom lañ def muy seen guddi gu njëkk ndax ñëw ànd ak ñun fekk si lii nga xam ne mooy tëjte li tey ku mel ni sëñ baaba mi ngi nii mu xaddam la ñëw fekke si tëjte bi ànd ko ak ñun tey te ña ngi ko doon jàngee fa mu jóge ñeneen ak ñeneen ak ñeneen itam kazalika kon mu xaddam yooyu ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di ñaanal seeni njaboot ak taalube ya nga xam ne ña nga àndoon ak ñoom ca burdu ya foofa fas yéene ko nag mottulee fii tey ñaan suñ borom mu nangul ñu lépp. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa man Baba Diop laa tudd dëkk Cax. di bokk ci kër gi yaakaar kër gi lool fekk fi samay maam fekk fi samay baay incha allahu ñaan yàlla it ne ci ba faatu loolu moo waral tey jii ah, moo war a fekk si bu tëj tëli ارحل لتيبة لا تم سواك